di nuyu bokk yëpp di leen ndokkeel tam ci at mu bees mi ñu dugg di atum jullit yi waaye tam xew-xew bu bees bi ñuy bi ci am solo bi njëkk ci at mi te mooy fàttali ku ñuy fàttali ko al imaam Cheikh Abdul Qadir ñoo ngi ndokkeel ñëpp ci xew-xew boobu defe naa ne bu ñu xoolee ci jamono ji ñu toll nii lislaam ak jullit yi dund lislaam ñi ngi jànkonteeg ay xat-xat yu méttee métti fu ñu dem ñu leen di bundu di leen maltraité di leen teg ay coono yoo xam ne nii seen njul rek a tax ñu teg leen waaye nag dafa mel ne yëf yi dafa jéggi dayoo léegi dañoo àgg ci fekk ñu ci suñ buntu kër bopp suñ biir kër yi bopp di ñu fa xatal di dox suñu diggante ak ñu mën a joxe suñu jaamu yàlla yi nga xam ne nii moom la yàlla farataal ci ñun te ay jàmbur jógee ci feneen bàyyi seen dëkk ñëw fekk ñu suñu dëkk di ay jullit war a joxe suñuy farata ñu fas yéene dox suñu diggante ak yu mel noonu loolu nag defe naa ne jataayu jullit buñ toog war nañ ko fàttaliku waxtaane ko ba jullit bu nekk man caa xam lay cay responsabilité am tam nanga ko assumé ba mat sëkk nanga ko kàddu ba mat sëkk teñ sori xeetu yëngal sidit yi ñuy def nervosité bi nga xam ci am yëngal say sidit wala yëngal yëg-yëgi nit ñi walla réaction yoo xam ne doo ko jàngat ba teg ko fi nga ko war teg yooyu yëpp du faj mbir mi waaye jullit nekk na xool li tax lii am ba jullit yi ak fi ñu àgg moom ban responsable da ci am te nangu ko gàddu ba mat sëkk loolu mooy fajtal mbir mi waaye leneen mënu koo fajtal discours nag bu ñu ko waxee te mooy lépp wax joo xam day génne ci nit jëm ci ñeneen loolu discours lay tudd mu am ñaari wàll benn bi mooy li na ci biir wax ji mooy message bi nga xam ni kiy joxe discours bi moom la bëgg a joxe ak wax ji nga lakk wala waxin wi nga xam ne nii ci lay jaar pour jàllale bataaxel boobu bu ñu xoolee ñaari wet yooyu nag danañ gis ne am na ab cër bu mag a mag ci li xew ci biir jamono ji ci biir jullit yi discours bi jullit li amee ak niñ koy jàllalee am na ci am na ci lu wér a ay jafe-jafe boo xoolee tey ci biir contenu bi maanaam ne ci biir discours message bi ñu bëgg a jàllale gis ne wuute gi daf cee bari lool xëccoo bi bari ci lool ku nekk di weddi sa morom ku nekk jàpp ne soo la nga nekk rek mooy dëgg sa morom lam ne di dëgg di ay gisin yu baree bari yoo xam ne nii mi ngi ci biir te li ci ëpp ñu baree bari ñu gisee gisin yooyu ba noppi dañ daan lii mooy lislaam wala lii mooy alxuraanul karim te fekk na seen gisinu bopp lay doon ñu nekk ci benn xista boo xam dañ koo dund mas nañ barab bu ñu nekkoon di fa liggéey ay tubaab ñëwoon fa gane si école ba ñu doon liggéeyee bi ñu toogee ñoom di waxtaan ci biir waxtaan wi ñu doon waxtaane mbirum xarafal jigéen léegi xam ngeen bu dee dëkk yi féete gànnaar ñoom dafa bokk seen aada seeni soxna dañ leen di dugal néeg defal leen li ñuy defal góor ñi biñ ciy waxtaan nag am ñoo xam kuréel boo xam dañoo jóg ne loolu daal lislaam moo ko santaane kon dañ ko war a def am beneen kuréel bu jóg wane ne loolu lislaam jàngalewu ko tey waris na koo mën a bàyyi tubaab bi mu jëlee kàddu li mu njëkk a wax mooy ne yéen de yéen ne ngeen ay judut ngeen te ñëpp ci alxuraan ngeen refeeru ba noppi li ngeen di wax bokkul kon xanaa kon li ngeen di wax nangam ak nangam daal ciy commencé sikki sàkk loolu mooy indi discours bi fekkante ne xalaat yi nekk ci biir fexewuñ ba mu dëppoo wala ba wuute na ba noppi ku nekk sax ca la nga nekk wala ne mooy dëgg day mel ne kon fa ñuy refeeru moo am problème loolu dafa fës ci biir discours bi jamono ji ñu toll nii waaye itam fes ci waxin woo xam ne nii léeg-léegi day jéggi dayoo gis mbokkum julit ak mbokkum julitam ñuy wax daanaka ba àgg jokkalante ay kàddu yoo xam ne nii kàddu yu ñaaw lay doon loolu nag li muy indi mooy dañuy dem ba cër bi ñu ñeneen ñi joxoon respect bi ñu ñeneen joxoon dañuy dem ba ñàkk ko te loolu ci lañ toll bu ñu nekkee suñu biir mel noonu tam day ubbil bunt ñeneen ñi ngir ñu mën caa jaar potoxlu ba wax li ñu bëgg wax comme li ma joxoon ci misaal bi ma joxoon ci tubaab bi noonu moom bëggoon nañu sikki sàkkalu ci lislaam ak alxuraan bunt boobu ci la jaar pour wane na yéen yéen a ngi wax lii te ñëpp yéen a bokk fi ngeen rafeeru te da ngeen a wuute ci mbir mi kon loolu dafay indi bunt boobu lay ubbi ñeneen ñi jaar ci ba mën a def la def te léeg-léegi nag buñ ci jaaree suñu mbokk jullit na ñun moo leen di jàppale bañ def lañ bëgg a def loolu kon ñu gis ne discours bi nga xam ne ni moom la jullit yor jamono yi li ne ci biir war nañ koo xoolaat waaye itam niñ koy joxalee ak niñ koy joxalantee war nañ koo xoolaat bu baax te bu yàgg dañoo jàngoon ne wax bu doon xaalis noppi moom wurus lay doon léeg-léeg day situation day toll foo xam ne nii noppi la gën a laaj ci wax waaye itam ñu jàngaatoon ci biir ne li ngay wax di ko réccu moo ëpp fuuf la nga xam ne waxoo ko te di ko réccu maanaam li ngay wax ba noppi rëcc la nga doon wax wala am loo rëcc la nga doon wax moo gën a bari fuuf la nga xam da nga noppi di ci am looy rëcc loolu tam ko day tekkal wax ji am na solo waaye am na danger bu ne ci biir ñu jàngal jàngaloon na tam ne wax moog médicament ñoo yem garab garab yi ñuy naan na doom ay doom wala ñu mel noonu moog wax ñoo yem dañu wax ne médicament boo ci jëlee lu yem doos bi ñu la jox nga respecté ko mën na laa amal njariñ lool waaye bu la xër yóbbee ci nga jëfandikoo ci lépp loraange la lay jural naka noonu tam wax mënta ñàkk discours mënta ñàkk waaye nag nday yam fi mu war yam waaye bu ko ëppee loraange ji muy jur moo loolu nag moo am ci discours bi nga xam ne nii moom la ñuy gis léegi ñu koy jonqalante suñu biir ñun ñëpp nag xam ne jamono ji ñu toll nii day jamono joo xam ne nii dafa ràññikoo ci wax ju bari liñ gën a seetlu mooy wax ju bari léegi nag dañoo àgg ci ba gëmloo ñu sax ne képp ku waxul ñu fàttal ku waxul doo jot sa cër loolu la ñu ñi gëm léegi ba ku nekk boo xëyee la ngay liggéey lépp mooy fexe ba daas sa làmmiñ defar ko ba man ne loo bëgg wax man ko wax boo ko defee nag dugg la sa yoon ne nga dugg ca lu sa yoon nga dugg ca lu ne nga wax ca lu ne nga jëf waxin ca ak waxin woo xam ne nii du tege ci nam war a tege waaye tam dem nañ bàgg ci léegi xamatuñ kan moo war a wax ak ci lan la war a wax mu gën a yokk nag bu ñu demee ba jamono ji nga xam ne communication dafa tasaaroo tasaaroo goo xam ne nii loo bëgg a wax am ku la ko mën a jàllaleel te jàllale gi gën a yomb lool mën ngaa toog fii di wax nit nekk fu nekk nit nekk ci àdduna bi di déglu li ngay wax di ci ànd ak yow man caa sax jokkalante ak yow ay kàddu ci biir loolu kon yomb gum yobba tasaare tax na léegi discours yi gën a siiw gën a tasaaroo moo tax ni ko imaam waxee léegi dañuy gis ne xoolaat diskuur yi nga xam ne nii day jàll léeg-léeg mu jàll fii léeg-léeg mu ñu koy dégg feneen ak feneen ci ay xew-xew yu wuute laaj na ñu taxaw jàngataat ko gëstuwaat ko te jubli ci nag yeete rek ak soññe ak yu mel noonu discours yooyu nag ma wax nag discours murit gi ci biir lay no lay dugg muy discours boo xam ne ni moom itam ci yenn ci yenn discours yi taban yenn yi boo ko xoolee dañ ci seetlu ci biir ne xat xatal dugg na ci biir xatal wax ji dafay dugg ci biir fës ci lool léeg-léeg nga wax ba mu yàgg mu ne sëñ Tuubaa rek a fi nekk wala lu dul sëñ bi ak neen la te sëñ mu moom jàngaliwul loolu loolu moom du jàngaleem sëñ Tuubaa koy wax yaa ko xoolee du jàngaleem sëñ bi loolu xatal lay jur te fës na ci yenn discours yi tasaaroo ci biir murid bi léeg-léeg itam tar ciw làmmiñ maanaam waxin boo xam ne ni day metti lool léeg-léeg sax mu xaw a tegu ci maanaam lañ la mu waral làmboo ci ay teggi ak yooyu léeg-léeg mu manqué loolu itam day feeñ ci biir kan moo war a def discours bi ak ci lan la ko war a defit léeg-léeg mu feeñ ci biir discours murid kon loolu dañ ci ñëwaat ci kanam kon danañ gis ne diskuur murid gi ci lim làmboo ci biir ak niñ koy jàllalee defe naa ne bu ci nekk waris na cee mën a am taxaw seetlu buñ ciy def xool ba xam ndax amul luñ ci war a jooyanti walla déet donte nag ci tàmbali dañ nangu ne am na ci biir murid gi discours buy jàll te mel na war a mel di jógee fa mu war a jóge di jàll fa mu war a jàll di jaar fa mu war a jaar nañ ko war a waxee ñu koy waxee noonu léegi kenn weddiwu waaye jafe-jafe bi léegi mooy ne murit boo gis léegi dafa am discours boppam ñun ñëpp ay orateur la ñun ñëpp ay conférencier la léegi moom loolu ñëpp xam nañu te loolu mooy safaanu li amoon ci murit gi bu njëkk bu njëkk benn kàddu moom amoon ci murit gi kenn ko daan wax wala boog kam ko wax loolu rek moo koy wax te loola moo ñu mayoon cër bi ñu mbooloo mi adduna bi joxoon bépp wala boog suñu nattangooy cër bi ñu joxoon loola ca la bokkoon ngir fesal loolu nag am na xeeti discours yu bëree bëri yoo xam ne nii mi ngi jàll bu ci nekk dañ koy génne ci formu question laaj ba xam ndax discours boobu war naa mën a jàll wala wëtu mën a jàll bu nu xoolee discours bi génne ci murit gi léegi tey gën di tasaaroo ndax dëgg-dëgg lim yor ci lim làmboo ci biir maanaam message bi mu làmboo contenu bi mu làmboo ci biir ndax dëgg-dëgg mi ngi joxe ay tontu yoo xam ne nii dëppoo naag li jamono ji laaj jamono ji ñu toll nii ndax loolu ñu ngi koy joxe wala joxewu ko ndax langage bi ñuy jëfandikoo làkk bi wala boog waxin bi ñuy jëfandikoo ndax dëppoo na ak situation bi nga xam moom la jamono ji dund jamono ji loolu benn laaj la beneen laaj bi tam mooy ndax discours boo xam ne nii la ëpp ca discours ba ci ay ay maanaam xar baax ci lay wax ay jagle rek ci lay wax yoo xam ne nii sëñ bi am na ko ndax loolu dëppoo nag maanaam jubluwaay bu bees bi nga xam ne nii moom lañ seetlu rek ci nit ñi te mooy jubluwaay boo xam ne day tegu ci logique tegu ci raisonnement boo xam ne nii xel moo koy lal ndax loolu dëppoo nag te loolu moo tasaaroo léegi ci diggante ñëpp moo xam ñi ñu tuddee maanaam amatu nas maanaam mbooloo mépp wala sax ñi nga xam dañoo àgg ci benn niveau léegi foo dem lépp loo teg ci kaw taabal bi nit ñi dañoo tàmbali léegi di jëfandikoo seen xel di la ci poser ay question di la laaj kooku nga xam ne xel lay jëfandikoo nag ku nekk xam ne ne logique dafa am domaine bu mu walaabal te mooy li nga xam ne ni man nga koo layal ci xel waaye ay xar baax ak ki jagle day ay mbir yoo xam ne nii ka ko moom rek moo ko mën a xam moom doo ngit moo ko mën a leeral loolu pour jox la ci misaal am na ci loo xam dañ ko dund am réew mañ ne woon fa jàng dañ fa amoon daayira boo xam ne nii dañ daan def bu màggal jotee ñu ko organiser conférence di dundal màggal gi foofu kon ñu bàyyi xel ci ne foofu ay murit ñoo fa nekkoon daje bi may bëgg a wax ni ay murit dong nga fa teewoon waaye ki doon def conférence bi mu defee conférence ba noppi ba àgg ci jullit sëñ bi ci géej gi jullit sëñ bi ci géej gi benn murit bi ci sikk sàkk amul kenn ñi mu wuccee sikk sàkk waaye nag pour war la rek léegi nit ñi logique bi ñuy doxee léegi waa ji bi mu defee conférence ba noppi dafa am ku yëkkati loxoom laaj ko ne ko dama lay laaj mu ne ko bisimilah mu ne ko laaj bi may lay laaj mooy sëñ bi bi mu jëlee si géej gi maanaam nan la def ba dellu ci bato bi ndax bato bi daa taxoon di xaar sëñ bi ba sëñ bi julli ba noppi wala sëñ bi daa am na bato biy daw maanaam daal nu mu delloo ci bato bi la doon laaj léegi foofu bi mu ko laajee ma gis ne waa ji doon def conférence bi wax dëgg jéem naa jéem waaye mën ta joxe benn tontu boo xam ne nii mën naa koo xam ne nii xelam mën naa mën naa convaincre koo xam ne nii xelam rek lay jëfandikoo kon distour boobu am na fu mu walaa bale waaye am na foo boo ko ko fa defee dangay ngay indi ay ji xijaaxa ci nit ñi kon distour bi léegi war na noo xool lu muy gën a dëppoog raisonnement bi nga xam ne nii moo am ci jamono ji am na distour buy jàll tam ci biir murid gi la ñuy làmboo la képp mooy wane ne sëñ bi dafa ñëw ngir mabbu daara yi dañ lay wax ne sëñ bi ba mu ñëwee daa tas daara yi ndax gis na ne jàng ak jàngale mënut li mu bëgg ci façon bu mel noonu boobu discours yi ndax mën naa jàll jamono ji ñu toll nii jamono joo xam ne ñëpp léegi dañoo jublu ci xam-xam gën koo dundalaat xale yëpp di jàng jublu si ndax boo leen bëggee présenté sëñ bi comme koo xam dafa ñëw ngir kontrom njàng ndax discours boobu mën naa jàll télé boobu mi ngi am na bu mel noonu mi ngi am ci biir murit ndax discours boo xam ne nii jamono ju nekk mu ngi sukkandiku ci ñaaw njort ci keneen keneen ki ni mooy ki ñu bëkkalul yoon bi maanaam lu nit wax rek nga ne sëñ bi lay wax lu nit wax rek nga ne ñun lay wax daal di fës ko yéene tontu te na muy waxe ndax boobu discours itam walaa bal te moo ne sëñ bi teel nañoo jàng ci nax muy téere boo xam ñëpp dañ koy njëkk jàng wax joo xam ne ni xëy na du ay waxam waaye rotal na ko rotal gi ñu ko rotal day tel ne dëppoo naag kooku la mu wax ndax dafa jàngal ne léegi damay romb nit mu di ma ŋàññi waaye damay fegu wax ne kii de xam naa waxut ak man sax gannaaw ba nag kooku noonu la jàngale rek kon kii wax di wàcc ci mbedd mi wax di posté ci maanaam net bi ak yu mel noonu audio yi rek maanaam yu mel noonu ñu koy tasaare ñu fas yéene ko tasaare audio nga fas yéene sëñ bi lay wax wala ñun lay wax loolu itam yàq day discours boo xam ne nii mën ta walaa ba jamono ji nekk kon yooyu xeeti discours la yoo xam ne nii war na noo laaj ndax mën naa nekk discours boo xam ne ni jamono ju nekk ak saa su nekk war nañ koy mën a jëfandikoo ndax niñ koy waxe waxin woo xam ne ni yow boo ñëwee doo waajal dara da ngay ñëw rek ñu jox la micro nga tàmbali daanaka du am thème bu bu ñu xam du tënku ci thème du ñu xam maanaam lu ñëw njëkk ñëw sa xel rek noonu ngay démarrer wax lu mel noonu wala langage boo xam ne nii foo ko fekk day mel ne kuñ ne koy défendre koo xam daal dañ ko attaqué mooy défendre ndax tam waxit woowu dëppoon naag jamono ju nekk kon yooyu ay façon discours la yoo xam mi ngi suñu biir ñu indi ko nag ci mu laaj ndax ba xam loolu discours yooyu ndax dëgg-dëgg mën naa indi ay tontu yoo xam ne nii dana convaincre ki nga xam mooy déglu kon war nanoo gëstu tont yoo xam ne nii képp ku ñëw di déglu discours murid yi boo ko dégloo ba noppi la ngay dégg dana sa xel dana ko mën a jàpp tey danga ko mën a jariñoo tey dan la mën a convaincre kon ngir tontu yu mel noonu nag la muy njëkk a laaj mooy ku nekk nga jàkkaarloo waat ak sa bopp nangut ne li ñuy wax dafa am ñu bare bari boo waxee lu mel dañu naan waa ji day wax rek waaye waaye loolu ñëpp gis la xam ko di ko dégg di ko gis di ko di ko dund kon wa weddi ko moom wax dëgg yàlla dafay mel ne mooy daw sa responsabilité kon nangu ne mi ngi fi nu xool nag ku nekk xoolaat sa bopp def sa autocritique jàngataat sa bopp ba xam nan lañ mën a def ba dugal lu mel noonu nan lañ mën a tam ba tontu nit ñi tontu loo xam ne dañ leen dañ ko nangu waaye itam day dëppoo seen xel weddi nag ne waxtaane jagley sëñ bi am na solo loolu kenn mënu ko wedd waaye jamono ji ñu toll ñun liñ gëm mooy ne àdduna bi liñ gën a soxla mooy sëñ bu mag bi ñu wane ko ci dimension humaine maanaam ci ak niteem ak lim nite ba noppi def loo xam ne nii nit ñëpp mën nañ cee jariñu ñu wane ko ci nite googu mooy tax adduna bi mën koo jël ngir régler ko seen jafe yi nga xam ne nii moom la ñuy dund kon lii soxla léegi mooy ñu wane sëñ bi ci dimension niteem ak niteem pour wan nit ñi ne leen doomu aadama la waaye joxe na ay solution yoo xam ne nii bu ñu ko joxee àdduna bépp mën nañ cee jariñu te mën naa régler lu baree bari ci àdduna kon loolu defe naa ne moom lañ gën soxla tegul nag te taxut nag ne dañoo wax ne kenn warta waxtaane jagle sëñ bi wala ay xar baaxam te defe naa ne ñi doon tànn tomb bi thème bi ñu ko doon tànn it yaakaar naa ni ci mooy am na génération yoo xam ne ni ñu ngi yéeg ñu war leen a fexe bañ am yeew yëg yéeg bu baax waaye tam ñu xam seeni i aada ak seen cosaan xam seeni valeur ak seeni i baax waaye tam ñu xam jamono ji li mu laaj dëgg-dëgg bañ mën a ànd ak seen cosaan ba noppi jamono bi du leen raw loolu ñu xam ko loolu la nag la koy may mooy yennat yu mel nii nga xam ne mi ngi ci biir murit gi ñu nangoo toog jàngat ko jàngat boo xam ne lépp luy xeeti par parloo ak la kuréel def ciy génn waaye ku nekk indi ko na nga gis ne moom bu ko defee mooy baax nga jublu ci nag luy jariñ mbooloo mi lépp defe naa ne loolu mooy solos waxtaan bu mel nii ak làmmiñ wi koy wax ak la muy wax ca biir maanaam mooy waxin wi ak li ne ci biir wax ji muy loo xam ne nii nit da koy génne ci moom benn dama di ko wax wala mu di ko bind di ko yónnee keneen koo xam da koy déglu wala mu ko liir la koy wuutaleeg yeneen waxtaan nag mooy moom lam ci jublu dëgg-dëgg mooy bàyyi jeexit ci ki koy déglu te it mooy ci ki koy jublu ki koy déglu jaarale ko moom yoon wi nga xam ne ni gis na ni moo gën a baax ci moom te moom lay waxtaan moom ngir mu loolu mooy discours moo ko wuutaleeg yeneen yi kon bu ñu wax discours murit mooy lan mooy dañaan mooy message wala contenu bi nga xam ne nii moom la njàngaleem sëriñ bi làmboo te murit yi bëgg koo jàllale ci ñeneen ñi ci jublu ca tasaareem njàngaleem sëñ bi ngir ñu jëfandikoo ko ngir mën na régler jafe-jafe yi nga xam moom la am kon loolu mooy discours murid mooy li ñuy waxtaane ci sëñ bi ci njàngaleem sëñ bi te bëgg koo jotli àdduna bi ngir àdduna bi mën koo jariñoo ci régler seeni problème loolu mooy discours murid discours nag ci déggin woowu mënta ñàkk ñetti élément benn bi mooy ki koy joxe ci boppam bi ci des mooy li muy joxe lim làmboo ci biir mooy risaala bi bi des mooy ki koy déglu ku nekk ci ñoom nag am noo war a mel ngir mën caa jariñoo ci déggin woowu nag discours dafa nekk loo xam ne nii ba àdduna sosoo ba léegi ñu ngi koy jëfandikoo te ba léegi ñëpp ngi koy jëfandikoo képp koo xam ne nii am nga maanaam yonent boo war a jàllale maanaam message boo xam ne ni war nga koo jël jox ko ñeneen képp koo xam ne nii da ngaa am looy woote te bëgg ñeneen ñi topp la da nga jëfandikoo discours moo tax yàlla wax ci lisaano ci wàlla wax ci yonent yàlla daawuda ne dama koo jox ma ak faslal xitaab mooy discours boo xam ne ni mu jàllee day leer nañ te day wax dëgg gi ñëpp xamandoo ko kon jumtukaay la boo xam ne nii ñëpp koy jëfandikoo képp ku am woote booy woote wala message boo bëgg mu jàll da jëfandikoo discours kon nag orateur bi te mooy kii def discours bi foofu day nekk koo xam day tegtale aw yoon aw yoon lay wane aw yoon lay tegtale te nag ku nekk la ngay tegtale yaa ka koy jëfe yéen a bokkum àtte ci misaal tey man su ma doon tegtale yoonu tegu ci jub yoonu mbaax képp ku jaar ci yoon wi lam cay amee ci yool man mii dama ko ci am waaye su ma demee safaan bi tam wax loo xam ne nii nit ñi dañ ciy jaar ba ak yàq juddoo ca maanaam kooka maanaam lu mu ci am ci ak bakkaar yow mi ko tegtal yoon wi tam da ciy am bakkaar loolu nag foofu la ñuy gëse ne kon képp ku yor micro di orateur di wax ñu lay déglu am nga responsabilité bu mag a mag boo xam ne ni gàll na ci xam nga ko wala xamoo ko nag leneen ndax wax nañ ne discours bu nekk day am lu mu làmboo nga bëgg koo jox keneen ki ngir bàyyi ci moom jeexit kon li ngay ñëkk natte sa bopp mooy su fekkee da ngaa wax ba noppi li nga wax bàyyiwul benn jeexit mooy da ngaa échec kon jàppal na yow la nga doon wax amul njariñ su fekkee ne da joxe discours ba noppi tam mu bàyyi jeexit yoo xam ne nii bokkut ak dañu doon séentu ba tey da ngaa kon jeexit ji bokk na ci nattukaay yu njëkk yi ngir gën a mën a leeral nag responsabilité bi nga xam moo gàll ci loosu kuy joxe discours moom it dañ koy jox ci forme ay ay ay question buñ doon laaj tey maanaam nit ñi lislaam bi nañ ko woyefale léegi nga xam ne diine jàng fi waaye dund diine daa gën a woyef suñu biir kan moo am responsabilité ci loolu buñ doon xool tey positif bi nekkoon ci mag ñi daroon Serigne Touba ak positif bi ne ci ndaw ñi ak nit nekk ci nit ñi jamono yi lu tax positif bële gën a dëgër bii lu tax maanaam taayife maanaam kuréel yi ñi seq diine ji ba noppi nekk ay kuréel ci biir lu tax ñuy am ak noonoo ci biir ba ñaari ñoo xam ne ñoo bokk lislaam waaye bokkuñu yoon wuñ jaar ci biir lislaam di ñàkk a mën a bañ a toog waxtaan kan moo am responsabilité ci maanaam débat boo xam ne nii du jur dara tey ñun bu ñu toogee la ñuy waxtaane mooy lan mooy sikkim bu gudd ak bu gàtt yëre bu gudd cëkkal ak bañ a cëkkal julli julli maanaam banque say loxo ak taalal say loxo maanaam détails yoo xam ne nii ndawa ndaw la par rapport ak défi yu mag yi nga xam ne mooy xool mooy xaar jullit yi tey duñ waxtaane ci réer gu mag gi ne ci jullit yi àddina booy xool tey réew yi ëpp gën a néewum njàng réewu jullit la nga koy fekk tey boo xool àdduna bi wérad yi nga xam faagaagal nañ ko bu yàgg ci yeneen dëkk yi ci réewu jullit nga koy fekk muy faagaagal nit ñi sibru choléra ak yu mel noonu boo doon xool tey ñàkk nit ñu amul dara ndóol ci réewu jullit yi ci la gën a amee doon te muy ñett yoo xam ne nii askan wu mu daje balaa bàyyi da leen faagaagal muy réer ak ñàkk ak wérad lu tax mënuñoo toog débattre discuter ci maanaam défi yu mag yooyu nga xam ne moo ñuy xaar xanaa ñu ne ko fa kupp di waxtaane yoo xam ne nii wax dëgg ay détails yu ndaw ndaw la loolu kan moo ci am responsabilité dañuy gis ne kon responsable mën naa yaatu waaye discours bi discours diine bi ñu yore ñun li cëpp ci la bokk ndax débat yooyu yëpp ñu koy ñu koy yëkkati di ko tasaare ci biir jullit yi mooy jullit seen bopp ñoo koy def kon loolu discours bu jaar jaarul yoon moo indi suñu biir te ki koy def moom moo ci am responsabilité tey ñi yor discours bi ci yoon ci ci diine ji ba noppi muy jur lu mel nii ñoom ñoo am responsabilité ci loolu boo ñëwoon ci discours social tey maanaam nit ñi lu tax nit ñi ak naafeq tasaaroo suñu biir maanaam nit koy wane loo xam gëmu ko wala muy doxe noo xam ne nii du pas-pas du ngëm lu tax bopp sa bopp bu ëpp fes ci ñun léegi lu tax ku nekk di xool sa intérêt rek waaye doo xool intérêt mbooloo lu tax ñii ku nekk di wane sa bopp damoon damoonte suñu biir fa nga bokk wala yaa ngi damoo ci alal ji nga am wala yu mel noonu man-man yi nga man loolu tam daañu gis ne man naa am responsabilité yu bëree bëri waaye discours social bi ñu yore di cëpp moo koy indi ndax xam nga ne discours social li muy jariñ mooy li ñuy wax socialisation mooy génne nit ci bàyyi ma yóbbu ko ci nite tey nag bu nu xoolee ñun suñu discours bi li ko lal yëpp mooy baat yoo xam ne nii miin nañ ko ay njariñ loo fekkee ku falfalu say yu mel noonu yi tasaara suñu biir moo indi léegi lu mel nii kon responsabilité ñi yore discours boobu day daal di feeñ foofu loolu mën nañ ko topp ba ci ñi yore wàllu politique bi di yëngu ci politique nga gis tey ku ne politicien nga day mel ne dañu laa xas ñun bu ñu bëggee wax nit dañu ko am diw de politicien dong la jëmmi politique ci boppam baat bi tam yàqu na yàquwaay boo xam ne nii léegi moo kuy tappale ak kuy def caaxaan ñoo bokk maana kon loolu kan moo ci am responsabilité tey kan moo tamal ndaw ñi nga taxaw di wax loo xam ne nii wóor na la di digge loo xam ne nii wóor na doo ko def kan moo ci am responsabilité lan moo tax tey ay magi jëmm di kilifa ñu waroon a roy ci ñoom ñu taxaw di jokkalante kàddu yu ñaaw ba àgg ci di xeex ak xulul kan moo ci am di ko jàngal nag ndaw ñi ñu koy màggaale loolu tam dañuy gisee discours politique bu baaxu moo koy indi murit gii ñu nekk lu tax tey maanaam nit ñemee taxaw ci kanam murit yi taxaw ci télé wala rajo ñëpp di la déglu wala ñëpp di seetaan ngay wax ay kàddu yu juunu yu ñàkk teggin di ko teg ci bopp maanaam di ko teg ci yoonu mu léeg-léeg sax nga àgg ci kilifa yoonu murid di ko teg ci kawam loolu ku ne xam ne bu njëkk amutoon kon lu tax léegi maanaam nit ñi ñeme ñeme ba lu leen neex wax ci yoon bi lu leen neex teg ci kilifa yi yoon bi loolu kan moo ci am responsabilité fi la xaqiqa discours bi ñu am ñun am na ci responsabilité ndax bu fekkee da ngaa yor discours man ku ma wax lu ñaaw ma delloo la ko da ngaa yor discours wane ne man ku ma weddi sama sëriñ ma weddi sab sëriñ loolu lu mel noonu lay indi ndax ku nekk xam ne ku nekk da nga am nu la yàlla may nu la yàlla may nga di ko doxe léegi nag ki nga jàmmaar loolu su fexee ba yóbbu la ci maninam yow bu ngeen xeexee mu gañe la ci misaal am na ñoo xam ne yàlla bindewu leen saaga mënuñoo saaga tey boo doon waxtaanee nit mu xëcc la ba dugal la moom dañ la saaga saaga moo xam ne da ngay dar say nopp ndax doo doo a tontu kon buñ bàyyi nañ bàyyi xel ci ne bu fekkente ne nit dafa waxe waxin boo xam ne dafa juunu nan fexe ñun ba wax discours boo xam ne nii discours bu tegu ci yoon lay doon teggi te loolu daañu ci gën a ñëw ci kanam te loolu sëñ bi daf ñu ko jàngal moom it ba tey wax ne ŋàññante ak weddante jikko yi gën a bon ci la bokk maanaam ñaañante ak weddante maanaam ku ma weddi ma weddi la ku ma ŋàññ ma ŋàññ la nee na ci jikko yi gën a bon la bokk moo ku ma dóoru ma dóoru la xeex ñooyam